stratégie boobu la ñu génne waat dossier boobu dossier bi nag li ma ci wax lu bëri dossier bi benn responsable moo ci am mooy la justice sénégalaise la justice sénégalaise est complice du complot qui se passe actuellement parce que mënuñu ne dossier bi mi ngi ci taabul juge juge ne kenn bu mu ci wax parce que instruction la bis bu ne nit génn ci wax fu ko neex ay médias étrangers sax ñeme dugg Sénégal wax ci lu leen neex dem soo ko defoon France yow mii tey ñu créé le problème ana justice ci jamono boobu. ndax yow pare nga léegi pour wéji justice boobu. man wéji naa justice ndey ma dem. mais procès bi ñuy xaar na déet déglu ma mu wax bu ñu bu ñu bu ñu posé question yi ci benn façon bi man wéji naa justice li ma waxoon dafa leer dossier bii gisuma juge bu ma ciy tëj kaso man Ousmane Sonko. ah ilaa yow mi diin gisuma ko loolu mooy benn bi ñaareel ñoom dañoo defoon seen complot. complot ba ça devait se passer au mois de février 2021 bi ñu ratee février 2021 la la ñu am problème ak dossier bi bi ñu ratee échoué jàpp Ousmane Sonko ne ko ñu ci kaso bi lañu ñu xam ni dossier bi perte nañ ko parce que loolu moo ne woon seen stratégie moo tax Serigne Bassirou Guèye nga xam ne lu yàqu ci magistrature bu dee téeméer la juróom-ñett ñett fukki moom la gaawantu ne mandat de dépôt man loolu laa ne woon du am mandat de dépôt boobu te ni ma ko waxoon laa koy waxaat tey dossier bi du ma dugal kaso man. parce que li ñu wax amul man kenn du ma jaay doole dinaa ci ñëw. Mhm. ma ne justice sénégalaise moo am problème. comme justice sénégalaise am na problème nag man dama jël samay résolution bu yàgg Macky Sall toog na huit mois ñemewul nommer un juge loolu kenn mësu koo gis. huit mois ñemewul jël ñoom ñeme un juge nommé un juge boobu mu ngi wut juge bu méngoog li mu bëgg te de préférence na bokk ci xeetam ndax ñu ñu présentiroo ñëpp ci même ci ci ci même canevas bi la loolu dama ko teel a wax bi mu amee juge ba nommé ko def na léegi ñeenti weer juge boobu ñemewu maa woo entendre ma man maa ngi fi. mais est-ce que du problème ma terminé du moment dafa la ñaan rek mm-hmm. ñeme woo entendre ci jamono jooju ña ngay permettre ay nit chaque jour ñu nekk ci télé ak rajo di wax donc procès bi léegi ça se passe au niveau des des rajo des télé mm. moo wax nag ni te bi mu tànn. ko xupp juge boobu yaa njëkk wax. ba mu ko nommé il est disqualifié. comme son prédécesseur. moo wax la pourquoi. ndax juge boo xam ne mois de février deux mille vingt et bi coow li amee sa page Facebook nga dem bind. Mm. jël benn article boo xam ne c'est à charge contre Ousmane Sonko. boo xam ne daf ma accusé nga publier ko sa page Facebook juge boobu jël na parti ba pare biñ biñ ko nomee mafia kàcc bi génnee xam nga booy dañoo garaw hmm. mu gaawantu supprimer page ba mais capture d'écran yaa ngi fi kon kooku mënatul nekk un juge neutre pour juger mais ma wax nii